boo ko mënaan a booleeg mbër mbër mi day tiit ne kii ab dofa mais guy gi bi ñu gis nii mooy guy gi négociation guy gi boo xam ne nii danaan su daanoo ne yàlla baax na yàlla rek mooy dogal yàlla ma mën a daan mais loolu du sport kon nañ ñu ñëwaat ci sport xool waxtaan ci sport waxtaan ci xam-xamu sport ñu dem fekk ki nga xam ne nii moom mooy la chéri de Fass Ndakaaru Ada Fass déglu leen Ada. guy donc pour man normalement dans le monde de la lutte tey bu fekkee ne dañuy organiser ay face à face am ay problème yu war a bëri waruñu ko mën a teg ci plateau mu ne yaay yooyu day poser question quand adversaire bi mënul ne. c'est de la manipulation ça ne se fait pas loolu manipulation la Moustapha Gueye en tant que chroniqueur mbir yi nga xam ne du ay wax écuréem au moins war na mën a ñëw def wax lu mu wax poser lu mu wax question mais c'est inacceptable Moustapha Gueye di poser question à la face di poser question naan gars yi naan ñi ngi yemale loolu mënul nekk loolu c'est de la bagarre psychologie c'est de la bagarre psychologie et ça ne se fait pas dama leen koy waxaat donc tout ce qui est interne externe dans le li nga xam ne ni tey moom mooy la la la loi des nœuds et la loi des des dômes xam ne mbër mi dafa soxla lu ñuy wax une boîte dérivation boîte dérivation boobu nga xam ne mbër mi da soxla dafa am lu muy laaj moom la ñuy wax mise à terre muy zone protection mais bu fekkee ne mbër mi dafa ñëw toog waa ji yor micro bi far ci benn camp en plus ose de le poser des on lui donne le temps de parole non seulement psychologiquement yaa ngi jaxase beneen mbër mi et ça c' est pas logique dans le monde des sports pas logique Sénégal rek la am donc ñu continuer waat. maa ngi nuyu di la ziar moom. léegi déglu leen aar. macha allah. yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. yaa ngi nelaw fan <laughs> <laughs> donc ici sur le plan non verbal boo xoolee Ada Fass ñu laaj ko ndax yaa ngi nelaw mu ne la maa ngi biddanti nga xool kanamu Ada Fass mu ne la Ada mi ngi soog a yeewu quoi ça veut dire que booy bi persistance su comportement am moo koy permettre ak la confiance la laquelle booy bi mi ngi ci mais bu fekkee ne état de forme da ngay gis ni guy gi moo ko ëpp état de forme mais booy bi en fait wékkut làmb ji ci état de forme ku xool aada da ngay xam ne aada mi wékkut làmb ji ci état de forme wékkut làmb ji ci guy gi man maa la ëpp doole parce que loolu da koo ñam diggante ak ki nga xam ne nii mooy Zarko mu ne damaa juumoon da koo souligner bu ngeen ko déggoo ci ay waxam daa souligner ne dafa am ci lu ma jugee damaa juumoon est-ce que naa waxatuñu waxu confirme ne ñoom. pare nañ ci côté préparation noppi nañ mais guy gi jusqu'à présent guy gi amul benn yoon fu guy gi waxee ne pare na moo tax man leen wax au ndax guy gi am na décision ci làmb bi continuer waaw ndaw le 30 xale som ensemble bu moom la ñuy donc xale mooy bëri gaaw ñi wax Ada ndax pare na physiquement wala parewul physiquement mu ne la booy bu ndaw sol ensemble bu wow koŋ ça veut dire que Ada Fass liggéeyam boo ko xoolee la plupart ensemble boo déggee ñu koy wax souvent souvent ci sport un jeune de sportif avec un ensemble solide boo ko day dégg mooy mbër mi lim liggéey yëpp suuf gi la suuf gi moo ëpp kaw gi suuf gi mooy gën a baax kaw gi ça veut dire Ada Fass il vient pour lutter athlétique ñëwul pour lutter mu diis wala muy lii déedéet Ada Fass dafay ñëw bëri bëri bu gaaw curux curux gaaw génn tak tak tak mais day fekk boobu tànk yi baax mu mën di wàcc di jug foofu la aada di waxee te da ko souligner te souligner boobu dafa mujjee tuuse guy ci beneen côté ne ko rumeur bi ngay dégg kon dañuy ñëwaat ni continuer waaw ñoo grisé allah rabi jaabu ko wane suñu daal ba tey guy gi ngi jooyam ah? ah, dugg na moom nee xale lu athlète lay indi lu wow lay indi. un jeune lutteur. Ah. nga bari mbooloo mu topp sa ginnaaw. donc Moustapha Gueye bu waxee c' normal quand on un jeune lutteur nga doon xale bu ndaw. déglu ko. surtout nag nga dëkk ci gox boo ci gox boo xam ne. ay ndaanaan ñoo fa mës di waree. yàlla dugal na ci laam. merci beaucoup foofu laa bëggoon a yem ak Moustapha Gueye mu ne Ada nga am tur woo xam ne nii sax xëy na dafa góo ko ci laam la moo tax lu motifu xëy na donc Moustapha Gueye c'était vraiment logique et véridique day wax aada dafa góo dara ci laam na ko xëy na xëy na ndax lan keppaar ga muy war mais keppaar ga muy waroo mosu ñoo jël roi des arènes. kon munoo wax aada xëy na ça veut dire que benn côté bëgg ngaa aada mais benn côté yaa ngi koy rey ci suuf yaa ngi koy briser moo tax ma ne la communication elle est très importante fii laay waxee ne leen gars yi dañuy wax te duñ xalaat nee naa leen tey ku nekk ak niveau ak domaine la communication dafa am lu muy laaj dans le plan non verbal verbal et paraverbal tey Moustapha Gueye bu laalee ki nga xam ne nii moom mooy aada na ko xëy ne ça veut dire mi ngi laam-laamee Moustapha Gueye mi ngi xool nan lay attirer aada pour aada dugg vraiment cent pour cent Bour Fass parce que nag aada buñ ko xoolee ci terme de préparation amul choix dem fee nga xam ne nii fa la ñoom Giri Doy nekk fa la ñoom Serigne Ndiaye nekk fee nga xam na nii fa la ñoom Lagros nekk ñoom Pape Doy nekk pour ñu may ko contact parce que boo xoolee école aada boo yooyu aada moo leen mën bu ñu waxantee dëgg te yàlla tax kon entraînement soir bi guddi gi c'est normal kon Moustapha Gueye ça le permet d'utiliser le mot xëy na peut-être aada day am misère daan ña fa ne mais turam dafa weesu romb na ña fa donc y a une logique nañ continuer moment bi mu war a jëlee kii nag ci la war a moom jëfe loo xamante ne tolloo na nag li ñu yaakaar ci moom mais Modou Mbaye est-ce que aada xam ne xam na bu baax léegi mu ne moment bii la war a mën Moustapha Gueye en terme de communication mu ne moment bii la aada war a mën a wane ne ci guy gi toll na fu ñu koy toog fu ñu koy teg ba pare mu changer communication bi citer le nom de du Mbaye comme ça veut dire que je dévie maanaam moom moo ko bëggoon wax mais wax ji foo mu dugal ci beneen personne boo xam ne nii moom mooy le second buy def en général foofu ngay amee les électrons et les la le phase et le neutre phase neutre phase neutre boobu noonu la Moustapha Gueye dem cherche ci Modou Mbaye déglu leen ko fi muy daane. guy gi ah li la bëgg laaj mooy yow ndax xam nga guy gi seen ngay combat xool bëreem xool xeexam. bu baax waaye famille mu ne aada ndax xam nga guy gi ndax xam nga guy gi lu muy bëre ndax préparé nga guy gi. Moustapha Gueye nekk ci keppaaru Ada Fass doon le directeur technique de Fass doon ancien lutteur fait partie l'un des meilleurs de sa génération mu génne question boobu jarax ko Ada pour dem jouer ci plan psychologique ki nga xam ne ni tey moom mooy guy déggoo leen ma ne Moustapha Gueye qui pose cette question en passant parabole par Modou Mbaye citez le nom de Modou Mbaye te ngeen dégg vocal Modou Mbaye laa daan dafa wëlbatiwaat ne ko est-ce que xam nga guy gi est-ce que xam nga guy di lu muy est-ce que xam nga guy gi et Moustapha Gueye lui-même moom ci boppam moom muy wax loolu Tafa c'est le directeur technique de Fass Tafa moomu doon l'un des meilleurs de sa génération kon psychologiquement guy gi il plus écrasé et touché à cent pour cent donc ma lay waxaat ne la les pensées toxiques ñi ngi encore toujours bopp guy gi ci li guy gi di xalaat à l'intérieur guy gi moom daa jël combat bi wékk ko ci ñëpp man la ñuy xeex làmb ji dafa mujjee dëgër làmb ji dafa mujjee dëgër guy gi moom amagut solution lan la war a def pour daan aada te loolu dinaa ci ñëwaat wax leen lu tax amul solution ba pare ma tegal leen nag li nga xam ne réalité bi nga xam ne guy gi da ko war a bëre réalité bi nga xam ne ni aada da koo war a bëri ma tegal leen ko après te billaay wallaay wa taalaay làmb ji du romb loolu nañ continuer ñu dem. bu baax sama bàjjan waaw di ñaan yàlla na suuf aw euh, si bu baax waaw di jaar tamit sama soxna mi ngi jaal soxnaam bi nga xam ne nii papam moo wàññeeku guy gi dafa commencé. ne sama digganteeg nas commencé jooy mais lan moo tax guy gi a pas pris le temps li nga xam ne nii ci souffrance mi ngi koy dund yëpp ci biir géejawaay di ko souffrir ak nit ñi bëggoon a yàq diggante ak nas jël ko dëxëñ ko tourné ko mu doon benn ouragan boo xam ne nii day positif nee naa leen bàyyi leen ci xel ci état psychologique dañuy wax ni les pensées toxique c'est pas les personnes qui nous entourent qui la cause c'est nous-mêmes mooy pensée yu bon yooyu noonu nga xam na ni dafa toxique ci ñun dafa posé wu ci ñun newul nit ñi ñu wër ñoom ñoo koy def ci ñun déedéet ñun ñoo koy xoolee noonu gisee ko noonu inventé ko ci suñ biir bopp tourné ko niñ ko bëgg a tourné léegi mu am ñaari tournure yu nekk benn bi mooy xaaral ma ba nit bët jooy pour gars yi yërëm ma beneen bi mooy xaaral ma ñëw tegal sa ndey maanaam man dama laa ëpp doole lu ma sa morom ci làmb kon guy gi dafa waroon demee ci beneen plateforme pour wax aada jafe-jafewu làmb moo ñu boole amul lu mu lay wax rek ngay doon rek ngay mës a doon lim dund lu metti yëpp mu dëxañ ko ci xolam ñëw ci jour làmb ji wane na moom c'est un champion mais guy gi dafa wane faiblesse am guy gi daa wane faiblesse am faiblesse bi moom mooy lan yow yaa ngi jooy mais li ngay jooy mooy loolu wax dëgg yàlla gars maa ngi jégalu ci saaga bi dama fàtte dama fàtte de ah barke yàlla dama fàtte mais xam nga poids toxique bi may wax ak yooyu moom ay Sénégal yàq nañu ma rek xam nga awa dama ma sax saaga booy booy di ñu may jàmm maa ngi jégalu bàyyi na xorom bi ñu continuer. waaw eh, yi xam naa ko bu baax. mais mooy def lépp seen tuuti. man amaguma Ada Fass nee na kii xam na ko bu baax xale mooy def lépp amaguma 30 ans jël leen moo boobu ngeen def ca entre guillemets ma ñëw ak yéen après à la fin Ada am na nu muy bëree day daan am na nu mu day daan bàyyi leen ci xel dégg donc xale mooy def lépp bàyyi leen ci xel moustique ñu koy ziar kon sama ma jàpp. ma ko yëkkati lu ma jàpp man maa mm, kaw espoir. aada nee lu ma jàpp man maa ko moom ci kaw sport boobu aada boo ko xoolee ci côté psychologie moom it dafa am benn petite faille bu ndaw petite faille bi fa lay feeñee moom moo may guy gi sax mu wax ci côté ay dévierge parce que aada dana ci côté sport lu ma jàpp maa ko moom ça veut que aada moom mi ngi xalaat beneen partie aada face bi gars di wax aada sérieux wut aada day taxawaalu aada day dem ci soirée yi aada fii la déclenché may guy gi lu mu ronguñu guy gi fer guy gi yaakaar ne boo waxee aada ci ton boobu noonu un un lay doon mais ba tey aada moom am un zéro nañ continuer. est-ce que est